thank you voilà bisimilah inna wal yàlla asalaamaaleykum ak lamb seen doomu day organe borom yéen kaay si xarala bi ñoo ñoo leen suñu lamb laataa loolu ñu leen ñaan yéen ñëpp ngeen abonné si site asalaamaaleykum ak lu lamb asalaamaaleykum mbokk amateurs yi xew-xew amatina ban xew-xew Ndiaye production moo wootee journée des drapeau Moustapha Meng mu baax moom Moustapha Meng député maire Kër Massar grand combat bi kan a koy bëree serpent bu bu yow mu baax mi ah oh. ku ma fa dégg ne ma massa lundi 27 janvier 2020 gros titre la demee Modou Lo Ama Baldé Luc Nicolaï yokk na jéegooy de première jàkkaarloo le 4 février à TFM maa la wax loolu mardi bii ñu jëm Abdou Bakhoum Birame ñu ngi ñoo koy ubbi de ñoo koy ubbi mardi suba suba ñoom ña ca TFM pour jokalante ay kàddu Modou Lo day ñibbisi gaaw gaaw gaaw pour fekkee lii di face to face Khalifa Dia ménagère ci Gris Bordeaux Gris Bordeaux mënta nu mu koy defee saa su nekk Habib Lecran

lay doon maa la wax lii beneen combat bi taxaw ñu def signature ba dëmb Gris 2 Reug ñaari géants ñaari ponkal yi ba taxaw na de def nañ face to def nañ dugal ci biir combat arbitre soufflé na mooy du ma taxaw kii moom Abdou moomee toon du forox nee na écurie naa fa sept fois benn défaite laa fa am bii mooy sama sixième sama septième victoire sama diggante Gris 2 arbitre soufflé na mooy defaral naa ko baga cinquième pas du am moom Ligue Nicolas na day am de face ah ah du may moom Mamadou Lo moo mais suñu day ñibbi de daar daar day ñibbi balaa mardi pour mën a fekkee lii di face to face moom Jules Baldé grand frère sël bu ndaw nee man jotaguma benn document bu may war ne war dem TFM def signature contrat tant jotuma document bi Jules sol samay daal di dem TFM déedéet parce que loolu lañ signé ci contrat bi Khalifa Dia manager Gris Bordeaux wax ne nee na ñu war a bëreel xam nañ leen Tapha Tine ci kanamam Lac de Guiers 2 ci kanamam dafa war a bëre ak ñoom espoir bu confirmé war si boom ne Gris jël la yow ndax moom Gris Bordeaux moomee bëri naa ñëpp ñëpp ci làmb ji ñun waa Gris pare nañ ku ñëw ñu jël ñi nga xam ne pare guñ nag pour dugg si biir làmb ji la saison ñu dem Emmanuel François Gomis moom Franc ñu ne saison bu mu tijjee ba léegi galaa yi mu participé léegi trois semaines la toll sept millions huit cent cinquante mille la def ci biir poosam galaa bu mu dem jël dem ñibbi moom Emmanuel François Gomis waaye dina raal li simple we dina ko raal ndax dafa war waajal combat diggante moom kii di Bébé Saloum war jàppale doomu ndeyam grandam di léppam di Papa ci combat bi ñoom mieux gi sixième journée Thiaga Faye moo ko jël ci kaw ki nga xam moo di Boubacar Tine jël bu rëy rëy la ko daan fële sa terrain gi la xewoon deux millions cinq cent lañ tegoon ci table bi septième pas ñu dem face to face samedi sa Thiès building Alaaji Gaynde tàngal nañ ba mu tàng jëpp jëpp jëpp beneen face to face bu neex a neex du kenn ku dul de Zallo Thiatou Nguel ñoom ñoo war a bëre premier moom Thiatou Nguel moomee nee na fils de naa la duma naa la daan beneen face to face bu neexal neexal neex 2STV la amee woon ak kañ buur bu boowal ëma seen junior ñaq jariñu Alioune Seye 2 ne combat bi du yomb ci yow de yow dama lay jël dóor nga daan suñu papa Tafa Gueye moom mais le deuxième Tigre Fass dafa ñàkk otom de ci APH bi oto bi daa tàkk ba jeex tàkk ñu ngay ñaanal rek yàlla na yóbbu ayam suñu borom defal ko lu gën ci moom jalgat laa mu comme ni ñu defee saa su nekk jalgat laa mu tey kan moo fa nekk la dëgër de la jato de la banlieue mooy wax ak de Gris lay wax la kenn ku dul Gris Bordeaux nee na Gris Bordeaux na bàyyi ragal yi te ñëw ñu bëre moom rek laa bëréwul ci VIP yi yéen kaay papa pëng yéen kaay tey maa ngay may waa groupe whatsapp riiru lamb ji xees daal yi moo di ante jox naa la ko nga joxal ma sama gars yi seen doom day organe borom yéen kaay